Senegal. Fogo Senegal. leen jàmm ci seen boutique bii di American Shop boutique bi ngeen doon xaar yegg si na ngi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi janoog seen karo kër xaadim boutique bi nag li ko tax a jóg mooy gunge sénégalais yi ci ay produits de qualité 100 pour cent américain boo lépp li nga xamante ni da ko soxla sa biir kër da ko fi am muy ay matériel électroménager am nañ ay frigo yu mag marque say by side ay Samsung ay LG attention frigo yi dañu ko garanti am nañ téléviseur de haute dimension boo bëgg am na fi image yu leer man yii xeetu image man musuma koo gis muy 40 pouces 48 50 65 75 ba ci 85 suñu numéro téléphone mooy 77 921 59 92 American Shop suñu spécialité ba tax ñu ñëw fii ci Ndakaaru mooy gunge ñiy yëngu ci wàllu hôtellerie équipé leen ba mu baax muy chambre à coucher ay matelas orthopédique yu baax original jóge fële ci Amérique am nañ ay lampe abat-jour ñu koy accompagner yow xoolal yi xeetu lal suñuy xeetu canapé suñuy xeetu meuble yow daw si gaaw ah yen ñi dëkk Mbour am nañu showroom fii ci croisement Saly ñun American Shop dañuy gunge ñi nga xamante ni dañuy yëngu ci wàllu hôtellerie bàyyiwuñu appartement meublé yi yow sa appartement da nga ko defar ba mu baax waaye am na lu manqué li mu manqué ñun ñoo ko yor di ay xeetu meuble yu baax ay chambre à coucher benn détail duñu ko bàyyi ba ci serviette yi nga xamante ni sa gan yi bu ñuy ñëwee ah moom la ñuy utiliser suñuy xeetu matériel moo mujjee xew ci àddina bi fa la ci Amérique am nañ ay chaise lant muy suñu papa yi ba suñu maam yi suñu chaise roulante yi dafa baax lool ñi nga xamante ni ñu am ay jafe tànk mën nañ ci toog am nañ ay béke yu dëgër yomb doxee am nañ ay piliyaan suñu piliyaan yow xoolal bu la neexee da nga koy lem def ko chaise bu la neexee ubbi ko ba mu baax def ko lal ñun American Shop dañu sóoraale suñu rakk yi suñu doom yi waaw six ans ba dix ans andil nañ leen ay dàll yu rafet couleur yu baax ci été bii ñu nekk ah darab yaa ngi fii coton cent pour cent waxoon naa la ko sànq waaw waaye foog ma leeral ko am nañ ay mbàjj ay ensemble ah yi xeetu coton suñu parfum yi nag dafa léger ndax ci tàngaay la ñu nekk waaw parfum yi daf lay jox xeet bu neex góor jigéen ah suñu frigo baar yi dafa baax ci tàngaay bi waaw boo koy utiliser du la tardeel benn yoon da ngay teg même pas vingt minutes mu jox la ndox bu sedd American soap waxoon naa la sànq ne boo jékkoo nga baale dërëman kuy saaga dañuy jaay ay vessel suñuy xeetu vaisselle yi ensemble am nañ ay filtre à eau am nañ ay tarmuus yu ànd ak robinet da ngay def sa ndox tijji mu daldi xel yi ah yow miy dawal moto ñun waa American shop sa kaaraange def ñu soxal moo tax ñu àndil leen ay casque original am sécurité jóge fële ci Amérique waa American shop ni ma usan insistel ci suñu matelas yi waa lu tax matelas gonflable la da ngay gonfler ba mu jóg nga nelaw ba yandoor boo paree daal di koy tëj def sa saak boo amee xew mën nga koo utiliser booy tukki mën nga ko yóbbaale kon sa màggal dina gën a neex boo ci àndee American Shop wax naa la numéro téléphone bi loo bëgg xam adresse bi fii ci Parcelles Assainies unité 22 ci wetu marché police bi jàkkaarloog seen karo kër Xaadim man daal American Shop jaaxal nañ ma ñoom bàyyi wuñu asalaamaaleykum amee fidèle internet ñu ngi leen di nuyu di leen ziar comme nag ni ñu koy defee di dugg ci réew mi euh, di dem ci xew-xew yi nga xam ne ñu am ci réew mi rawatina nag euh, waxtu yi nga xamante ne moom la ñu nekk muy waxtu safar tey nag ñu daal di ñëw fi nga xamante ne moo di Zac Mbao di fi euh, seet ki nga xamante ne moo di Mor Thiam moom daal di def nag ab gu rëy ku xam Mor Thiam nag xam ko ak yoonu murit kon nag yoon la bu safar gi dikkee rek mu daal di defee nii ba tax na nag ñu daal di ñëw fas yéene rek seq xaw moom li nga xamante ne mooy benn waxtaan bu gàtt rek daal di koy laaj rek ci naka la waajee rek li nga xamante ni moo di ah, safar gi nga xamante ne ah, moom la nekk di def tey jii fii ci Zac Mbao ay mbokkam ak ay xaritam ñëpp daal di koy wuy si Mor ñu lay nuyu euh, di la siyaar di sant yàlla di julli ci yonent bi di leen delloo nuyu di leen jox seen wàccuwaay di ñaan yàlla ci seen jàmm ak sutura xéewal ñaan yàlla seen tànk yi yàlla boo leen ci am lu leen naqare yàlla buñ ci am lu ñu naqare ci màggu yàlla ak baaxu rasulullah barki Sëriñ Tuubaa ak Cheikh Ibra nuyu Sénégal comme ni ngeen ko waxee noonu Mor euh, ñu daal di ñëw fekk la tey fi nga xamante ne fi nga dëkk muy Zac Mbao nga daal di fi organiser nag safar gu mag say mbokk say xarit ñëpp daal di lay euh, ñëw wuy si euh, lan mooy yëg-yëg bi tey. waaw yëg bi mooy def la ma daan def sant sant la Serigne Touba gi mooy suñu mooy suñu lii ñuy def tey waaw ndax ñun biñ juddoo ba léegi ci sant Serigne tubaa ak sant la ko santam gi rek ci la ñu nekk mooy lii ñu xewle nii tey waaw mooy safar. ku euh, am kër Touba nag di am murit war ngaa war a mën a safar di safar rek sant la Serigne Touba santam ji. comme ni ma ko waxee say mbokk wuy si la say xarit wuy si la say am di jàmm ku gis fii rek xam ne ah, Mor Thiam moo daal di toll noonu. waaw mbooloo bi parce que mbooloo bi ñëw fii bokk ñoo mbooloo bi ngeen xam waaw fii dëgg-dëgg Mor Thiam fii la. ndax lii mu fi wut mooy li muy doyee li muy soxla ëllëg yemal koy am alaw ban waaw euh, bokkut ak euh, Mor Thiam beneen bi beneen mortiam Thiam bi mooy Mor bi taasu ak yooyu loolu jamono la àddina la waaw fii public bi ngeen fekk fii mooy public bi nga xamante ni ànd naan la wala ànd tuur ñun ñëpp kennal Serigne Bamba la ak nangul ko ak fas yéene ko santale santam ci waaw. tey euh, comme ni nga ko waxee. sant la nga xamante ne mooy Serigne Touba li nga xamante ne moo di santam jëm ci li nga xamante ne moo di ah, màggalu Touba ku ne xam ne ne safar gi bu jeexee ci li nga xamante ne moo di màggal gi naka la Mor Thiam di waajalee xam ne moo di bés bu bés bu mag bi ni ma ko daan defee rek ni ma ko sosee woon di am téeméeri junni di màggal am million di màggal noonu rek laa koy defee amul amul amul wàññeetu ak yokkute rek heure bu ñu yeewoo loolu rek lañuy ñuy lijjanti waaw c'est parce que bis bi li tax mu mel nii mooy bis bi moo jiitu Mor Thiam Mor Thiam géwél bi bis bi moo ko jiitu waaw ndax damaa taawloo Cheikh Ibra mu am 22 ans kon kooku yàgg na di murit ma caatloo Cheikh Ibra mu am 8 ans kon xam nga kooku yàgg na ci murit waaw bis bi nag laa yàgg di woote moom laa yàgg di woote moom laa yàgg di nangu moom laa yàgg moom la ma nit ñi gën a xamee sax que yeneen bis yi waaw mooy bisu màggalu safar gi fi may ñëw mooy différent ñaari Mor Thiam yi Mor bi ñuy gis souvent ci géew yi. ak Mor Thiam murit bi. Mm-hmm. ñiy seetaan euh, souvent internaute dina mais kii moom la ñuy gis muy taa su mu bëgg a woote woo taalibe la ñooñu loo leen di. waaw ñooñu nag moom wax dëgg yàlla dégluwuma leen ndax dëgg-dëgg seeni xol xamuñu ñaar kenn lañu xam te dëgg-dëgg as gor day nekk ñaar waaw day nekk li muy wut ngir suñu borom am loo xamante ni daf koy wut ngir nit ñi. Mor Thiam bi ñuy gis mooy Mor bi solo ba jekk ñëw ngir bégal leen bokkut ak Mor Thiam bi solo ba jekk takk tar laxasaayam ngir wuti ji yàlla ca fam ko yaakaar foofa concerné wul kenn xam nga comme concerné ki koy def ak lim ca gëm ak kim koy defal ba xam mu ngi koy yëg wala déet ah, kooku loolu la. la laajoon sama digganteeg sëriñ bi mooy juddu màgg fekk sëriñ Bamba mu nekkal ñu ñun. man maam Mahmoud Mbégéré mooy sama maam moo indi màggalu peex taal moom la sëñ Bamba fekki won peex mooy sama maamu yaay Thiam géey mi ma jur Abdou sekk mooy sama papa Cheikh Adama Guèye Serigne Bamba premier Cheikh Serigne Bamba mooy sama maam man judduwuma daw fekk sëñ Bamba damaa judd fekk sëñ Bamba ci biir kër gi ah, <laughs> man sama sama dëgg-dëgg gi mooy sëñ bi ñam naa ko xam naa ko tam-tamal naa ko tàmmal naa ko sama bopp waaw xale bi noonu jàng alxuraan léegi sama doom la waaw loolu mooy dëgg dëgg Mor Thiam waaw Mor bi ñuy fooyee nag mooy moor Thiam bi ñuy dajeel ci xew yi waaw loolu nag doo la <laughs> yàlla yàlla moo ne woon xëy na ah bala maa faatu damay nekk koo xamante ni ci réew mi laay dëkk di bigal waa réew mi ah, loolu ah, nga wax ko ngay taalibe taalibe ci jéggale lan ko xamee ak masla wax lu baax. démb dama dégg sa benn vidéo nga ne ku la def da koy def. la mhm. wax koy wax. waaw boobu Mor Thiam mooy Mor Thiam boobu ci liggéey boobu. waaw waaw Mor Thiam biy ak a jëlale. fi muy jéggalee ak fi muy jëlalee. ñi ko war a fekke ñoo koy fekke ñi ko war a fekke duñ ko fekke Mor Thiam bi biy dóorante ka fayonte day dajante ko ko dóor mu fayu mais Mor bi biy jéggale daf koy wéetal suñu borom sa parce que suñu borom lay concerné ah? dañ koy dóor mu fayu ci loolu lañu jigee waaw Mor Thiam biy jéggale ak a jëlale fi muy jéggalee ak fi muy jëlalee ñi ko war a fekke ñoo koy fekke ñi ko war a fekke duñ ko fekke Mor Thiam bi biy dóorantee ka fayonte day dajantee ku ko dóor mu fayu mais Mor Thiam biy jéggale daf koy wéetal suñu borom sa parce que suñu borom lay concerné ah dañ koy dóor mu fayu ci loolu ci coow la ñu jigee bërki démb coow kan ñu tudd la ci coow kan ci diggante Awa Baba ak Sala Saw loolu romb rëy na loolu romb na. waaw wax yi ñu ci dégg dañ ci tudd Mor parce que nee na dëgg-dëgg cause bi Mor Thiam la. waaw mais man rek tudd ma Mor Thiam xëy na da ngeen di seet beneen Mor Thiam bi man Mor Thiam géwél laa taalibi Cheikh Ibra. xëy na da di dem ñu wax leen ban Mor Thiam la bu dee Mor Thiam bii taasu. ñu nag ba dajeeg moom ci taasu yi ñu laaj ko ci loolu mais tey safar la Mor Thiam mu Serigne Fallou ak Cheikh Ibrahima Fall moo fi nekk. Mor Thiam taasu amu fi tey fii dama laa nga def safar jël ay millions financé ci ay waxi kenn bu du fi jib waxi Serigne Touba ak Cheikh Ibra rek fi jib maa moom sama kër maa tànt maa moom sama xaalis maa koy bégalee sëriñ Bamba fii loolu rek fiy jib yow ak Mor Thiam bi nga xam ne Mouride la di def safar euh, tey wax nga ko Mouride dafay jéggale tey baale alors gis nañu benn acte bi nga xam ne def nga ko keroog sa diggante ak Daba Seye néem doo ci sori mais tey boo ci doon wax rek ngir sénégalais yi mën a dalal seen ay kàddu wax ka ni Mor Thiam dafa siis ci digg géew lan nga ciy wax rek ci ci safar loolu dañuy xaar ba eggaat ci boobu ci domaine Mor Thiamu géew bi te bu dee dama tooñ ñu baal bu dee ñu dañ ma tooñ baal naa leen mais tey daal cause bi du cause Mor Thiamu géwél tey cause Mor Thiam ak Bamba ji ak euh, la vingt cinq tey ma woote safar neuf jours moo tee ñu màggal nañ ma laaj ba xam am naa gileem ba xam am naa nag ba xam am naa ginaar ba xam nan lay dundee màggal ci safar euh, gileem ak nag kenn kenn wéranteetul ne waaw man dama bokk nag ñaar fukki million di ko def ci màggal ak sëñ Bamba gi waaw ah, dama bokk nat pour màggalu Serigne Touba gii safar ak màggal dama ciy def ñaar fukki million benn géer musuma ko cee jox carte duma ci ñaan duma ci ab waaw li may taaje boon dama koy seelal ba mu sell indi ko fii di ko dajale ba mu mat benn bés laa am muy màggul Sëñ Tuubaa geeg safar gi waaw moo tax yeneen yeneen Mor Thiam bi moom bi taasoog yooyu dama bëggoon ñu xaar ko rek ci taasukaay ba te tey ñu wax tuuti rek ci Bàmba ji ak li Sëñ Muntaxa santaane ak yooyu daal waaw moor Thiam Mor Thiam bi taasu dañ ko jàppee nittu folklore waaw. est-ce que wane woo loolu. waaw c'est parce que la may liggéey loolu lay laaj. <laughs> waaw mais ñu bëri dañ lay jugé ci say façon ak say manière ak Mor Thiam bu nekkee ci géew li muy waxee manière yi muy waxee ñu bëri dañ la siy jugé bay am fuñ la siy dëkkal. waaw fuñ ma ciy mënti dëkkal maa opté liggéey bi lu ma ci dégg doy na ma lu ma ci dégg nangu naa Mor Thiam bu folklore mooy bi ngay woo. teg say million jokkalante jot nga jokkalante loo ko mu jokkalante la taasu jot mu taasul la boobu mooy moor caam bi ñuy wax lu ko naqari mais Mor Thiam ci Bamba ji sukk la ak raam ak jël sa alal joxe ko sëñ Bamba ngir yaan yàlla ëllëg mu fay waaw ñaari Mor caam yooyu la boobu nag xëy na nattu la ban moom a ci gënal billaahi wallaahi taalaahi Mor Thiam bii ngeen ma fekk tey moom ma gënal xam nga lan moo tax bii laay am yàlla nee dama ci am wax dégg ci lu ma naqari ba pare ma ci am dara lu dul xaalis ta xaalis ko am yàlla am xaalis waaw loolu moo ngi dependre ci sëriñ Moustapha Faty Kane sama sëriñ billaahi su ni ma woon bu subaa bu taasoo ti dootuñu ma dégg. kon li na ko. yàlla soxla suba bu ma yàlla bëggoon a faatu suba damay faatu bis bu ma sama sëriñ ni woon bul wooteeti fenn. bul taasooti bul demati fenn barki Cheikhul Khadim dootuma ko def. mais tey boo toogee may ma tuuti ma laaj ko foofu ñu tàggoo alors ñi lay critiqué tey ci sa liggéey euh, wax nga ko euh, ne da ngay liggéey da ngay daan sa doole moo la dugal ci wàllum taasu tey ñi la ciy critiqué di wax ni góor du taxaw ci digg géew euh, lan nga leen di tontu quand même ci ci loolu. ñooñu dañoo amul juddu mosuñoo am géwél waaye avant géwél bu jigéen di am ci géew géwél bu góor moo daan ànd ak buur ànd ak moom xare ji fital bu mës a jug ci géwél bu góor lay njëkk dal ko géwél bu jigéen. kon tey ñi amul juddu ñoo xamul seen maam yee ñan la ñu àndaloon xamuñu luy géwél bu góor ak géwél bu jigéen pourtant géwél bu góor ak géwél bu jigéen xam nga luy seen différence uh-huh. góor ak jigéen waaye ñëpp ay géwél lañ uh-huh. c'est parce que géwél bu jigéen bi ak géwél bu bi boo leen boolee seen ñaari maama bokk ak baay te géwél bu góor bi bu ñëwee na def la ko war après dem géwél bu jigéen bi def la ko war après dem la maam ya doo daan def nag te géwél yi doon na ko man loolu rek laa doon. mais est-ce que tey li maam yi daan may ma tudd est-ce que tey da ngeen di noppi nag da ngeen di noppi ngeen arrêté non da ngeen noppi ngeen arrêté laaj leen ma ci safar bi ak yëf yi. c'est parce que non non non non tëjtal bi ah. na nekk lu xew. waaw tëjtal bi tëjtal bi mooy maa ngi sant yàlla julli ci yonent bi sant Serigne Touba ak Cheikh Ibra yàlla nañu yàlla may ñu fekke safari safar ci barke Serigne Touba merci non amaguma nag nag bu bu ku ma may nag. ma jël fàlluloo moo fi yónnee ay nag. ah kooku borom soxna Fat Bintou Pouy. bu ma limee bu ma limee nag yi ah moom moom tabaarkàlla. Eh. Anta Babacar moo yeew nag yi fi yeewee yëpp. awa baaba. ñëpp a ñëw. Hmm. photo 100 pour cent waxoon naa la ko sànq waaw waaye foog ma leeral ko am nañ ay mbàjj ay ensemble ah yi xeetu coton suñu parfum yi nag dafa léger ndax ci tàngaay la ñu nekk waaw parfum yi daf lay jox xeet bu neex góor jigéen ah suñu frigo baar yi dafa baax ci tàngaay